asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ni dimanche bu jot ci waxtu bi yéen a ñuy topp ci li nga xamante ni mooy seen chronique bi ñu leen di defal fii ci États-Unis d'Amérique di leen wax ni nag am nañu mbégte kontaan nañu bi su tey bi di leen wax ni seen émission bi muy chronique bi nga xamante dañ leen koy defal ci dimanche bi jot ci waxtu bi dina jàll ci li nga xamante ni mooy la radio FM bi nga xamante ni mooy sunu kër te di émettre depuis fi nga xamante ni mooy Californie ki ko jiite di sunu mbokku taalibe boo xamante ni ñu koy wax sëñ Saliou Diop ñu bari gën koo xam ci Serigne Ndiawar Diop donc ñuy commencé benn collaboration boo xam dañ koy def waaye day génn ci euh, rajo bi nga xamante ni mooy FM bi nga xamante ni moo nekk en Californie aux États-Unis mais aussi aussi day génn ci chaîne YouTube yëpp yi nga xamante ne rajo sunu kër moo ko moo ko yore muy sunu kër FM nga xamante ne dina génn aussi ci chaîne YouTube bi di leen wax dañ ngeen dolli ñu ñaan ba li nga xamante ne dañ koy defal Xaadimu Rasuul muy li nga xamante ne njàngam yi law ñu gën ko wéral li nga xamante ne mooy fii nga xamante ne mooy étranger bi ak lépp li nga xamante ne mooy àddina bi waaye di leen wax aussi seen Ndiawar Diop ci rajo sunu kër FM aussi dinañu def beneen émission boo xamante ne wala day yëngu ci wàllu jamono wàllu politique parce que dañoo bind benn téere boo xamante ne moo nekk nii mooy Sénégal les nouveaux chantiers de la démocratie bi ma ko bindee fii ci Amérique euh, ma yónnee ko France ñu sélectionné ko publier ko di ko jaay ci réseau fi nga xamante ne moom mooy Amazon yi maa ko bind Sénégal les nouveaux chantiers de la démocratie wala trajectoire et perspective d'une démocratie wane ni Sénégal yoon yi mu war a jaar ci démocratie démocratie deug deug deug dañ ko bind ci 200 pages donc nak loolu moy émission bobu aussi dañ koy def muy autour du micro autour du micro di xalat ci li nga xamante moy walu jamono donc dinañ ko def ci sunu kër fm dinañ ko def aussi ci li nga xamante ne aussi mooy euh, surtout internet bi nga xamante youtube bi nga xamante sunu kër fm moko mom bi nga xamante mo moo nekk en Californie waye nak dañuy ñëwaat ci li nga xamante moy sunu passion li nga xamante moy sunu bëgg-bëgg li nga xamante moy sunu tay ak ëlëk muy di waxtaane mbaax gi nga xamante ni moom la xaadimu rasul lëngoo moom la nekkoon donc nag dimanche bi ñu génn ñëwoon nañu fi nga xamante ne rek moom mooy euh, li nga xamante ni mooy jaar jaaru sëriñ bi fi nga xamante ni moom mooy ndar ginnaaw bi nga xamante ne daje na ak tubaab yi le 10 août 1895 ci tund jeewal jël ngay Mbàkke Baari Jolof ñu indi ko ndar mu am fi fanweeri fan ak juróom-ñett ñu atte ko le 5 septembre 1895 jàllale ko Dakar jàllale ko aux îles Cassa fi nga xamante ni def na fa escale muy Conakry 3 kilomètres de Conakry et 700 kilomètres de Dakar ba fi mu jaare Grand Bassam jaar fi nga xamanteni mom moy dawme dem Libreville jóge Libreville ñu yóbbu ko Mayombe Libreville ak Mayombe rek ça fait plus de 900 km yo xamanteni deux fois le Dakar Tamba condition yu metti di dugg ci galu lo ci dëkk bo xamanteni day taw 9 mois ci 12 mu dem fi nga xamanteni aussi mom moy Lambaréné ba ni ñu ñëwé Sénégal waaye nak dañu bëggoon. comme dañoo dugg ci taarixu li nga xamante ni moom mooy procès 5 septembre 1895 dañoo bëgg a xam nag léegi Serigne Touba lu taxoon jëlul ay armes jëlul fital di xeex tubaab yi te tubaab yi ñi mu doon xeexal ñëpp tubaab yi tër na leen ñëpp ñëpp tubaab yi tër na leen benn par benn lan moo tax nag tubaab yi Serigne Touba nekkoon fi ak ñeneen ñoo xamante ni dañ doon woote lislaam woowu ñu leen waaye tubaab yi jël singali Serigne Touba donc Serigne Touba nag loolu la ñu bëgg a gëstu ba xam lan moo waral loolu ndax Serigne Touba ni ma leen ko waxee jëlul ay armes waaye tubaab yi aussi bi ñuy ñëw fii nga xamante ni dañuy coloniser Sénégal dañoo ñëw ak li ñuy wax seen sibilisation ak li ñu bëggoon ginnaaw koom gi nit ñu bëggoon sénégalais bi mel ko dañ ko indaale indaale aussi lii nga xamante ni mooy diine

Manam jàmmaarloo ak model bi nga xamanteni ni la tuba bi bëggoon bi indi Serigne Touba nak du point de vue nee occupation territoire du Sénégal Serigne Touba indi réforme wala mu indi lo xamanteni lu bees tax la lo xamanteni ni jullit yi nekkoon Sénégal sax xamuñu ko won moy manam Serigne Touba bi nga xamanteni ni jóge na fi nga xam moy mooy Mbàkke Kajoor ñëw Bawol ba ñëw sant dëkk bi nga xamanteni ni la njëkk sant muy daru salam donc originalité d'abord occupation territoire bi ak daaru salaam maamam yeeg bàyyi ni li ñuy baax baax baax bu ñuy sanc dëkk dañ koy dàkkantale seeni tur yi waaye Serigne Touba bi mu ñëwee indi daaru salaam ci contexte boo xamante ne contexte mu la nee naa leen bi muy ñëw daaru salaam tubaab yi dañ ñu woon seet fi ni dafa ñëw pour jël li nga xamante ne mooy la bawal parce que buur yi fi nekkoon ci Yacine Fall wala Tanor Dieng mi fi nekkoon ñoom ñëpp doon nañu ñoo xamante ne tubaab yi xamoon nañu nit ñi bëgguñu leen te Serigne Touba nit ñi toppoon nañ ko donc bi muy créé daaru salaam mooy le premier choc mu tuddee ko dëkku jàmm dëkku jàmm boobu nag muy Daaru Salaam doon na loo xamante ni mënoon nañ koo tekki ci jamono jooju lu bare bari sëriñ bi boobu mi ngi wax ak jamono ni moom daal l'islam bi nga xamante ne moom lay taxawal ci farata ak sunnas Muhammad sallallahu taala wa ci yoonu jàmm rek la koy wootee waaye nag aussi xam ngeen ni bi mu jógee fi nga xamante ni mooy Daaru Salaam dem fi nga xamante ni mooy Touba itam même signification daaru alimul kabir bi mu nga xamante ni ndaam joxoon na ko sëriñ ndaam abdourahman loo même signification donc originalité serigne Touba bi muy tuddé daru salam amul benn dëkk bo xamante ni tudd na daaru salaam ci Sénégal donc originalité ci occupation territoire mais original aussi ci démarche bi nga xamante ni moom la sëriñ Touba di def serigne Touba commencé ñi nga xamante ne nag ñooy seex yu jëk yi ñu mel serigne sëñ Assane Ndiaye ñu mel serigne sëñ Balla Fally Dieng ñu mel serigne Ibrahima Sarr Ndiaye ñu mel serigne sëñ ndaam abdourahman loo ñu mel jàmbaaru l'islam di maam Cheikh Ibrahima Fall ñooñu ñëpp ñu mel ne maam Cheikh Anta premier cheikh donc ñuy ay modèle yoo xamante ni fépp fu ñu dem waaw d'abord première action bi mooy bu ñu demee population yi projet de rejet la ñuy def ñoom waaye bu ñu fa tekkee ab diir rek nit ñi xam ni ñi ñooy modèle ñi bu ñu leen di fàttaliku dañuy xool Serigne Touba mi nga xamante ni moom moo leen formé ndax ngëneel yi àndoon ak ñoom donc modèle u Serigne Touba jëkk génn ci école la mi maanaam seex yi territoire bu ñu dem rek dañ fay doon référence ci seen comportement ci seen gëm yàlla ak ci seen maîtriser li nga xamante ne mooy alxuraanul karim ak xam-xam yépp ak ci seen mbaax ak nangoo liggéey loolu aussi modèle boobu commencé di tasaaroo ci réew mi après territoire aussi am yeneen modèle culturel yoo xamante ne aussi day ñëw nekkin bi nga xamanteni mom la talibé yi di nek changement yi nga xamanteni amna ci langage bi ma ngi len di wax kérok ni la boy nelaw sax dañ nan la mi ngi dawlu bo dee jeuwriñ bo boo jité mbolo dañ nan la moy suñu jeuwriñ duñ ni moy suñu chef duñ suñu moy suñu leader mais moy suñu jeuwriñ donc changement vocal yi dafa am importance mu commencer changer sociologiquement Serigne Touba aussi touba bi niñ koy déggé rapport yi ñi def néna len administrateur anjo mo jëk def rapport am en 1889 def 84 marabu yi nek Sénégal yëpp mais dañ leen danger bi mooy ki nga xamante ne moo nekk Mbacke Bari moo nekk fi nga xamante ne mooy Euh, mbacké kadior parce que doon na koo xamante aussi model bi nga xamanteni mom lay wotal nit ñi ni ñu koy toppee doon na loo xamante lu kéman la administrateur Leclerc ak ñom ñep ñi nga xamanteni def nañ ay rapport ci Serigne Touba lepp moy dénominateur commun bi donc model bobu la touba bi bëggul won ci Sénégal touba bi dañu bëggoon model bo xamanteni buñ ko tabaxé projet bi ñu bëgg mo leen koy yoral légui daaneel nañu ñi nga xamanteni ñoy ñooy euh, yi seen doom yi def nañ leen ay chef de canton def nañ leen ay chef de province daggal nañ leen salaire ñi ngi topp topp li nga xamantene moy mooy touba bi donc Serigne Touba indi li ñuy wax jallar bi indi révolution bo xamantene c'est une révolution silencieuse moy jallar bi bo xamantene ne dañuy jàllar bi société bi silencieusement nga xamantene nit ñi dañ koy top Serigne Touba nak mom ci jamono jooju fépp fo dem ci kër buur yi Serigne Touba moy doon modèle bi nga xamanteni mom moom la ñëpp di waxtaanee Serigne Touba moy ki nga xamanteni moy def actualité bi ci éducation ak na mu mel ak ragal yalla loolu aussi doon na lo xamanteni ni neexul woon touba bi nga xamanteni ni rek pour économie mais dañu ñëw pour indi ben modèle bo xamanteni mom moom la ñuy France di wax nak France bi nga xamanteni mom mo indi domination bobu ci Sénégal bobu fekk na ñi ngi def seen révolution de 1789 muy révolution sociale bu France defee révolution de 1789 ñëw di dominer Sénégal.

pënd bi bari waaye bi pënd bi wëree gis nañu ma ñëwaat toogoon fi ma toogoon continuer di jaamu yàlla ñoom ñu dem defi leneen donc projet colonial bi dafa échoué woon ci Serigne loolu jar na sax ba nga xamante ni ñun ñi nga xamante ne dañuy xalaat war nañu mën a xalaat ñun projet boobu nga xamante ni Serigne Touba si la tolloon ak construire model bu bees ak économie bu bees ak li nga xamante ni aussi euh, euh, maanaam euh, daje bi lieu daje bi dootul doon penc mi mais lieu daje bi mooy joon jumaa yi ak tool yi donc liggéey ak jaamu yàlla yàlla ba nga xamantene sax après dinañ ci ñew bu ñu ñew ci màggalu Daaru Xudoos gi dinañu ñew ci conséquences yooyu di expliquer xam nga ni tubaab yi de sëñ Mouhamadou Moustapha wuto Serigne Touba dignement xam ngeen ni danañ ñëw ci màggalu Daaru Xudoos gi ak li nga xamanteni qualité yi àndoon ak sëñ Mouhamadou Moustapha Al Karim tubaab bi proposé won nañ ko pour mu doon le grand marabout de l'afrique occidentale française mais daf ko décliner ni dal il préfère jumaa ji ak tool yi loolu nag mooy tradition Cheikh Ahmadou Bamba donc modèle économie bi li nga xamanteni mo upp ci économie bi ñukoy produire taalibu Serigne Touba yi ñokoy produire ñoo yor économie malgré contexte de crise bi fi Serigne Touba nek won

moom lañ doon célébrer barki dem di leen wax qualité yi nga xamante ne moo ànd ak sëñ Mouhamadul Moustapha Al Karim waaye nag bu ñu sëñ Touba mooy sa waajuru góor noonu la mën a mel waaye buñ ñu soxna Aminata Lo mi jóge sëñ Madieng Fallo mooy sa waajuru jigéen noonu la mën a mel waaye buñ ne sëñ euh, ki nga xamante ne mooy maam Thierno Birahim Mbacké moo la yar Cheikh Moussa Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim noonu rek la mën a mel ndaxte maam Thierno sëñ Touba da doon naan mooy sama mbokk mbokk mi mooy ki nga xamante ne mooy murit bu dëgg wi mooy ki nga xamante ne daje na ak juróomi gouverneur changé mooy ki nga xamante ne Leclerc dans ses rapports ne woon na maam Thierno Birahim Mbacké mooy ki nga xamante ne keroog bi ma koy wax ne ko dinaa jël Serigne Touba dama ci jublu woon di ko tiital maa ngi ànd ak na naat da kii daal day caaxaan rek donc maam Thierno Birahim ku mu yar noonu rek nga mën a mel dinañ ñëw incha allah ci aspect yooyu yépp ci sunu chronique bii di ñëw di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous allah dimanche prochain ci beneen chronique waaye bu leen fàtte di ñu suivre ci sunu kër point fm parce que bi nekk Californie dañu fay jaar léegi jërë ngeen jëf